jërëjëf maam Ali amati mbégte ak kontaante bu baax a baax a baax jàkkaarloog yéen fii ci Sénégal Buzz 221 mbokk yi ni ñu koy defee ak yéen saa su ne di dalal ay kilifa wala ay ndaanaan waaye tey ñu togg ak ndaanaan loo xamante ne ni ma koy waxee dootuñu ko présenté Sénégal ndax it taxawaay bu am solo bi nga xamante ne moom la taxawee ci réew mi le grand promoteur Ibou Laye may am mbégte nag tey dalal ko bu baax a baax a baax fii ci Sénégal Buzz fas yéene séq ak moom waxtaan ci lépp loo xamante ne rek actualité la ci réew mi ñu fas yéene ci yaatal man moom laataa maa gën a wéyal ay kàddu ma bàyyi ko rek mu yokk bokk internet yi le frère maa ngi lay nuyu bu a baax waaw ñu lay nuyu di la ziar. Mhm. di la jox sa wàccuwaay. Mhm. di wax gannaaw bi sant yàlla julli si yonent bi ñu gërëm suñu ñaari waajur. Mhm. di ñaan suñu papa yàlla na ko yàlla yërëm. amiin xaare ko àjjana ak bépp waajur bu génne àdduna. di nuyu suñu sëriñ sëriñ Mbaye si Abdou Aziz. ak waa Tivaouane yëpp. di leen dokoyal ci ziar bi ñu génn. Mhm. dem nañ ci jàmm ñëw ci jàmm. Mhm. yal na jàmm yàgg daal. amiin waay mhm. macha allah yal na jàmm yàgg muy kàddu ñaan yu am am solo ñu ko koy sante waaye comme ni ma koy faral di waxee rek ndaanaan loo xamante ne dootuñu ko présenté Sénégal mu nekkoon ak un grand champion. ci ginnaawam ba tey mi ngi ci ginnaawam waaye mu imposé dugg ci biir làmb fas yéene yokk li nga xamante ne aussi mooy làmb doole euh, jamono ji nag dootuñu wax Ibou Laye bu xarañ loo mais le promoteur la ñuy wax. <laughs> ñaar yëpp baax na baax na mais naka ngay. dundee parce que tey mën ngeen yow Ibou Laye xarañ loo. micro moo tax mhm. loo moo tax ñu xam Ibou du dëgg. Mhm. tey Modou moo tax. ku xam mhm. Ibou tamit. waaw ah, kon lépp lépp daal benn la quoi. Euh, lépp baan la daal. lépp benn la macha allah mais euh, aussi naka nga koy dundee li nga xamante ne aussi moo di euh, chapeau promoteur bi. waaw affaire yi moom comme li ma si wax ah dama siy dugg rek mais du ma ci gan quoi. xam hmm. naa xam naa milieu làmb xam naa làmb xam naa mbëri xam naa affiche yi donc. nekkul dara lu ma jaaxal loo xamante ni lu extraordinaire la quoi. Mhm. waaw parce que xam na maa ngi maa ngi woon ci milieu bi quoi maa nga yaa ngi ci milieu ba ah. euh, boo xamante ne dafa marqué gars yëpp ci combat yi nga xamante ne taxawal nga ko précisément ma ñëw ci jën kéré ki nga xamante ne moo di Zarko. Ah. Ibu alamb jooju ndax na taxawal. <laughs> waaw comme li may wax chaque fois ah. <laughs> uh-huh. méttiwul trop trop méttiwul trop trop. xam nga uh-huh. parce que ñaari mbër ñaari camp yëpp bon xool nañ ko ci xool nañ ci man. Uh-huh. xam ne aussi ci milieu bi ci milieu bi laa nekk xam nga xamante nañ bu yàgg donc dawal nañ ci kóllëre boobu quoi. loolu mhm. taxawal bi méttiwul. Mhm. bi ma waxtaan ak Zarko comme ni may waxee rek daf ma ne carrément dama la waxante sama adversaire pour d' accord mhm. bi ma waxee adversaire aussi ma xool adversaire yi mu tombé si Diène. Diène tamit yombal ko. mu taxaw mu taxaw mais méttiwul quoi. muy làmb joo xamante ne sénégalais yi aussi yàqamti nañ ko te yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm incha allah waaye aussi am nga date. ci combat am naa date pour le 18 juin ci combat Youssou Ndour Mor Kankan. Youssou Ndour Mor Kankan waaw le 18 juin incha allah bu ñu si yàlla hmm. bëgg jàmm bu soobee hmm. yàlla. Hmm. sax yaa ko njëkk am parce que. waaw. barki démb a ko kii quoi. barki démb nga am date bi waaw waaw. macha allah Youssou Ndour Mor Kang Kang kon événement la bu mag boo xamante ni xëy na euh, am nañ date bi le 18 juin incha allah waaye aussi euh, pour génn ci point boobu noonu rek ñu ñëw fan yii coow làmb bëri woon na loolu ci Reug Reug Sa Thiès. Mhm. naka nga jàngatee coow loolu. waaw vraiment mu nekkoon làmb bu neex. xam nga <coughs> discipline suñu grand makan mhm. xam nga vraiment may nañu affiche bu neex làmb ju neex mbër yi tamit xam nga remplir nañ seen contrat bëri nañ bëri bu neex ba li si am am si mhm. te làmb signature contrat bu métti làmb bu jaay rek moo tax mu mujjee noonu mhm. <laughs> làmb yi ba jeex sax di gën a bëri mhm. te ba ay quatre appuis am ci ak affaire yooyu mais vraiment ñaari mbër yëpp ñu ngi xam nga di félicité Sa moom i seen see jox victoire bi xam nga di ko ñaan yàlla mu jikko di encouragé rek rek xamal ni moom lii du dara comme ni ko Sa Thiès waxee rek xam nga ndaw la mi ngi ci yoon donc pareegul quoi. Mhm. Sa Thiès daan ko du dara. Mhm. moom mu daan xam nga. Mhm. bon c'est la loi de sport quoi nii la ko yàlla na na takk jaaj rek nekk ci. te xam ne champion la. Sa Thiès maakare beneen paa boo xamante ni. Mhm. macha allah. Mhm. mi ngi egsi si gars yi mën nañu mën nañu wax sax ni ñëw na quoi egsi na. Mhm. waaw yal na leen yàlla defal jàmm daal mais vraiment. lépp lu promoteur bëgg si bis bu jaayee rek ñoom def nañ ko quoi. macha allah macha aussi dafa am benn loo xamante ne daf cee xaw a feeñ ñu bëri ñaawlu ko ci yenn communication yi après combat bi ndax làmb jër na yéen yi. waaw après combat bi moom. làmb jarul yéen yi quoi. comme ñi si jàppale sa mbër jaay combat bi mu neex kii wax fii kii wax parce que man mii rek samay anti stress lañ. Mhm. comprendre nga waaw. <laughs> man fu ma gis liiru damay seetaan fu ma gis Xaadim Njaay <laughs> damay mhm. mhm. loolu lañ woon. xamante sa bi jaru ko. xam naa lii xam naa lii c'est des menaces yoo xamante ni xam nga moo na egg feñel quoi. mën nañ mën nañ waxtaan rek mu neex ñu kaf mu xam nga ñëpp seetaan mu neex mais jarul woon egg nag si yenn si yenn domaine yoo xamante après mën a yàq ay affaire quoi. Mhm. ay xamal naa loo xamante su ma ko waxee dëkk bi tooj. Mhm. xam nga wax nga ma si diw loo xamante nii mhm. tamit yow jiw boobu ngay wax bu déggee wax ji rek automatiquement mu ci xelam mën na ñaaw. c'est vrai te jaru ko quoi yooyu moom làmb waru fa egg quoi. franchement mhm. macha allah muy kàddu yu am solo la ñuy faral di rafetal bu baax a baax a baax ñun ñëpp ñoo bokk aussi li nga xamante ne moo di làmb ji ah. mhm. waaye aussi keroog làmb ji dafa gën dundaat gën a judduwaat ci face à face Modou Lo Boy Niang mhm. euh, combat boobu keroog ngeen dugg arène nationale peut-être xam naa ne moo nekk seen première dugg si biir arène nationale. ngeen dugg see keroog ngeen gisee arène waaw bon remplir contrat rek. xam nga mhm. promoteur bi tëgg na ñaari mbër yi. woo na mhm. leen pour ñu ñëw présentation. Mhm. xam naa neexal stade bi affaire yooyu rek. ñëw nañ def nañ ko neexal nañ ko xam nga. Ah. boo ñaa ñëw na dugg show show moo du ñëw dugg show show am xam nga. vraiment ñu def ko ci anam bu bu sell bu jaar yoon. waaw vraiment. ñoom tamit juróom gën nañ bokk nañu la gën a neexal bis bi quoi. waaw ñoom parce que xam nga ni moom saay bu duggee moom gaa yi dugg si na ko <laughs> moo dëgg Balla Gaye xaw ma gaa yi waaw uh-huh. ah, vraiment keroog bi mu dugg se uh-huh. gaa yi kontaan nañ ko uh-huh. waaw stade bi neexoon na trop keroog. waaw Makan daal keroog moom vraiment journée bi moom macha allah. oui. keroog bi ngeen jàkkaarloo ak Boy Niang seen xel xaw na daal. parce que dégg naa fu mu nekk nii waa parcelle ñu ngi tëdd mais nelawuñ ndax booy ñëwaat daa yomb seen xel mi. non heure dina la ba yeewu heure. dem entraîner. lekk ba suur naan ba màndi waaw. keroog bi ngeen gisee Boy Niang seen xel dal. non boo Boy Niang wax rek Boy Niang champion la. Mhm. Boy Niang Boy Niang bu ko Modou xamul woon du ko jël. Mhm. te moom a dafa rampé ba egg si fi mu ñëw comprendre nga. Mhm. làmb jo loo xam ne moom Modou xam naa ne pare na ci lépp. Modou pare na ci lépp mu ngi koy waaj mu ngi koy préparé au calme sans bruit. sans bruit ah, waaw sans bruit waaw. parce que fonk combat rek. Modou yow xam nga yow gëj nga gis Modou. waaw yàgg na gëj naa à ñëpp kenn ko gis. Mm-hmm, mm-hmm. donc mu ngi ci rokkam di liggéey. Mm-hmm. waaw moom xam nga moom jobkat la moom am combat liggéey ñàkk am combat liggéey. mu ngi ci liggéey bi daal mu ngi ci liggéey bi mu ngi ci wàccaay. waaw combat bi li nga naan sor nag sorwul mais moom ba léegi jàpp nañu combat bi un mois dese donc mi ngi ci hmm. liggéey bu baax baax baax baax hmm. euh, liggéey boobu noonu lan la moo dafa bëgg indiwaat leneen loo xamante ne wala bu ñëwee sénégalais yëpp dar seen gémmiñ xam ne toog bi nekkul woon toogu neen non xam nga sénégalais yàgg nañ dar seen gémmiñ ci Modou hmm. parce que Modou moom chaque fois adversaire nga ñu tey mu tey la ko waaj di rey <laughs> ba si booy yi rek gars saa yi booy booy ñaan temps yi dafa naa kërë mais nag chaque fois ñoom dañoo xamagul Modou daal waa bi gars yi dañ ko dañ ko xamagul daal mais. Ah. mais dégg naa temps ay ibaadu ngeen mais keroog dañ leen xëpp gàllaaj arène nationale. <laughs> yow du dara. Ah. yow moog làmb ñoo ànd saa hmm. yooyu du dara ay gallaaj xëpp gàllaaj yooyu du dara affaire moom. Ah. bis bu jot. Hmm. gars yi dem ci géew gi bëri ko. waaw mooy loolu. Eh, gars yi nee nañ Boy dugal na Modou ci làmb ji de ndax Modou kenn du ko sotti gàllaaj ci làmb loolu de dégg naa. non moom Boy Niang da leen dugal carrément ci làmb. nañ bàyyi ñaari mbër defante ñu defante rek bu ci kenn dugg mhm. accompagné yoo xoolal nañ bàyyi ñaari mbër yi gérante yi dañuy gérante mhm. bu keneen sànni keneen bu kenn xëpp keneen mhm. comprendre nga li pare sax CNG jël na ay matuwaay ci affaire yooyu affaire yooyu ni si euh, accompagné mbër defe naa dootu ñëw ci signature contrat yi affaire yooyu quoi donc yooyu tamit jaru ko woon quoi. jaru ko woon da doon neexal làmb. da doon neexal làmb mais ko. Mhm. parce que tamit bu dee ku neex sànni ku neex xëpp. waaw amatul sens yooyu mbër bi moo koy def. Mhm. comme parce que CNG buy dagg mbër mi lay dagg. c'est vrai man su dee mbër. keneen def leneen kooku CNG xamul kooku CNG man laa xam bu doon nag man maa def man mii mbër mi. CNG mhm. man man lay waxal mais bon. su fekkee léegi ñeeñ dañuy ñëw di xëpp ji dóor di xam nga. amatul mhm. sens quoi dañ bàyyi mbër yi di ko defante muy neex. Mhm. Mhm. Ah, gars euh, waxtaan bi am na solo lool Ibou te neex mais naaj bee ñu xaw a ñu toogoon. Hmm? non dafa jékki-jékki rek génn dàq moo tax ñu def euh, déplacement nii mais ñu ngi war ci point bu am solo ci li nga xamante ne aussi euh, dégg naa ni temps yi moo doon ngi dugg fu ne moom ndax mystique bi fu mu ne nii moom tëj na seen bopp. moo doon nga dugg fu ne. waaw ndax dégg naa Modou kay mu ngi ci ay entraînement am nag dëgg yàlla hmm? moo demul fenn mu ngi ci ay entraînement dox ay soxlaam mais sinon moom hmm. defe naa ay entraînement am lu gën a tal quoi. Mhm. waaw. Euh, mais euh, li nga xamante ne jamono ji yéen a ngi koy dégg Modou Ama la njëkk a bëril soogee bëreeg Boy ñi nga xamante ne yéen nekk ci wetu Modou pour lu dal xelu nit ñi lan ngeen gis Modou kan la njëkk a bëril. non man de pour l'instant Boy la laa jàpp. Mhm. ba keroog ma kan di régulariser combat bi. Mhm. am na lu ma xalaat nag. que ni su fekkee Ama Gris dañu bëre si année bii. le promoteur bu dee gaaw régulariser combat bi. Mhm. est-ce que tamit promoteur bi tëggoon. Modou Ba waaw lig na ko waaw du jéem a ñëwaat ñu dafa bëgg combat boobu. kon dut yi kon li waa Pikine di wax mën na indi dut. Gaston Bakane daal. Hmm. man promoteur am tant demoo régulariser ah. defe na <laughs> ah, waar daal. Uh-huh. mais pour l'instant ñun daal ñu ngi préparé suñu combat ñun. Modou daal moom taxaw na daal kuñ ko woo mu ñëw bëri mu ñëw bëri. ah loolu kay Modou moom Modou Modou bëri moo ko fi rek la fi nekkee. comprendre nga Modou la. Modou mbër la. li daal lay def. Mhm. affaire moom am na yoo xam ne moom affaire de staff la xam nga. Mhm. mais pour l'instant ñii daal Sénégalais yëpp li ñu jàpp lañu jàpp mooy que ni moo taxaw quoi pour l'instant. Mhm. Modou Lo Boy moo taxaw muy combat bu neex boo xamante ne aussi sénégalais jàpp nañ ni du yàgg dara nañ ko seetaan ñaari xale yooyu bëggal leen ci bu baax a baax a baax ñu ngi wax nag promoteur Makan gaawal indee sénégalais date na xam naa ni am nañ yaakaar bëri ko saison ren bii de wala. waaw ah, mën na nekk. Hmm. mën na nekk de ah. mën na nekk de ah. na nekk. mën na nekk incha allah yàlla nañ ci yegg ak jàmm incha allahu rabbi waaye aussi.